bu Kajoor gàmmu Kajoor yegsi na waajaleen ñu dem Kajoor gàmmu Ceneba Kajoor yegsi na sëñ Murtada woote na waajaleen ko kul fa jiitu doo am lay gàmmu Kajoor yegsi na waajaleen ko